opposition bi nu ñuy opposé ñoom la concerné mais dama lay wax ci réew lañ nekk ci état c'est sur la base des document stratégiques par exemple président Macky Sall quand la est venu il a mis en place le plan Sénégal émergent mooy bréviaire bi nga xam ne mooy dox ba tey ba 2025 2025 le projet doo a ñëw parce que ci ngeen koy finaliser teg ko c'est sur cette base là la ñuy doxalee réew mi c'est pas sur des déclaration c'est sur cette base de ce projet là bi nga xam ne document physique la ci la ñuy doxalee réew mi ci la ñuy mën a def suivi évaluation du leneen soo ko xamul ci réew ñu ñu ñoom xam nañ ko ñoom ñii doog a ñëw xam nañ ni c'est sur cette base là lay doxe mais def nañ ko waaw déglul. ils ont lancé les bases. parce que le président Ousmane Sonko a instruit. mais Demba Demba Demba s'il te plaît euh, bàyyi ma euh, terminer le premier euh, a instruit donc à ses ministres de de d'élaborer un plan d'action plan d'action boobu nag. day loolu nattukaay la. je pro je dis j'applaudis nattukaay la Demba je dis Demba je dis tous les actes forts que le président de la République. waa déglu lu grand oh oh. tous les actes forts que le président de la République pose man citoyen j'applaudis mais su ma liiree conseil des ministres nga toog fii di ma wax waxi projet ma ne la projet bi amul parce que conseil des ministres nee na projet bi dañ koy defar. mais nag il faut ñu expliquer non defal ndànk rek non grand waaw mais mais non attends Demba jàll à autre chose parce que il a un problème pour m'écouter non non non parce que tu sais bàyyi ma terminer bàyyi ma terminer parce que moom il faut pas qu'il pense que le projet amul woon parce que mais amul woon le projet c'est mais amul woon c'est une manière de de le communiqué le communiqué d'hier nous a montré que le projet n'existe pas non c'est le gouvernement du Sénégal qui l'a dit j'ai dit que. toi tu es politique. toi tu es non j'ai dit. toi tu représentes un parti politique. moi je parle de la déclaration d'un communiqué officiel de notre gouvernement. moo ëpp doole sa wax yow. maintenant suñu naree. non non c'est-à-dire. ma Maria moi j'ai j'ai j'ai des précisions à faire. et je voudrais les faire. n'est-ce pas. fii par rapport su ma waxee ay déclaration c'est parce que c'est des déclarations que vous aviez vendues au peuple sénégalais vous les avez vendu beaucoup de choses mais quand vous êtes arrivé réalité pouvoir dafa ñëw taxaw da ngeen di nangu ni réalité pouvoir taxaw na il faut ngeen changer de paradigme je suis d'accord parce que tamit doo ñëw doo daw ba bëkk miir da ngay d'accord da ngay d'accord ni réalité pouvoir ñëw na taxaw da ngay changer de paradigme changer démarche changer disposition